moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma ngay xam ne ni nag dina réconcilier waat sénégalais yi ba noppi nag fexe ba Sénégal ànd ak naataange waaye daañu xeex nag lépp lu jëm ci wàllu ger mu di sorteem bu njëkk boo xam ne rek moom président Bassirou Diomaye Faye daal dina koy amal nag kaay bi di Le Soleil di xam ne ne fi mu toll nii nag gàlloo na posture président de la République ma ngay rafetlu ci biir yëglekaay bi taxawaayu Macky Sall nag ba noppi xam ne daal dina gouverner réewum Sénégal ci yërmande ak compréhension waaye lépp dafay tënku ci leeraange wan ginnaaw lépp jublu ci wàllu liggéey bi moom Bassirou Diomaye Faye ma ngay tàllal loxo ci biir yëglekaay bi njiitu Afrique yi waaye tamit ñii di communauté internationale bi ngir ay Ba moom nag bi noppi nag di félicité candidat coalition Diomaye président félicitation yooyee nag mi ngi ko bokk ak président Macky Sall Adama Barrow El Ghazouani Embalo Doumbouya ak Emmanuel Macron Christopher Fumio di directeur Afrique bu ONG américain bi di indi ña ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne élection yi nag dafa fësal beneen xar kanam Sénégal am na ko yéenekaay bi di l'Observateur amal moom enquête bu yaatoo yaatu nag jëm ci secret de vie bu njiiti réew mii di Bassirou Diomaye Faye dalee ko ca ba muy tuut tànk ak ay bëgg-bëggam fépp foo xam ne rek jot na faa jaar yéenekaay bi di xam ne ne nag journalier la woon ca tool yi nga xam ne rek moo nekk ca Malika génn àdduna ak magam bu góor bii nag doon na li nga xam ne rek mënu koo fàtte ci dundam na mu def ba taseeg soxnaam su njëkk ba ni mu takkee ñaareelu soxnaam bi benn laataa ñu koo tëj ci kaso bi nag loolee lépp yéenekaay bi dellu suwaat na ci ba ci ñaan yi nga xam noble yi nekk ca village am nag ñaanal nañ ko ko nag moom cinquième président bu Sénégal Diomaye Faye porté na projet bi yéenekaay bi di Le Quotidien daal di xam ne ne askanu Sénégal nag dañoo bëgg coppite te man mii nag dinaa fexe ba engagé wu daal di gouverner réew mi nag ci yërmande waaye tamit nag xeex lépp lu jëm ci wàllu guerre ma rendre hommage bu am solo nag jëmale ko ci kaw Ousmane Sonko président Macky ak Amadou Ba ña koy félicité moom Bassirou Diomaye Diakhar bi ci wàllum transparence ak démocratie ba ñu mën a am élection yu ànd ak dal te ànd ak leeraange ma ngay dellu soit ci chantier prioritaire yi nga xam ne rek jamono ji ci la fas yéene jublu nag ngir mën a door liggéeyam bokk na ci chantier yooye nag wàññi dundugu cher gi réconciliation national xeex lu jëm ci wàllu corruption Walf Quotidien nag dellu soit ci chantier yu mag yi nga xam ne rek ci la fas yéene sëgg moom Bassirou Diakhar Diomaye Faye Sud Quotidien daal di xam ne ni nag 24 heures ginnaaw ba ñu ko tabbee ci bopp réew Sénégal moom cinquième président bi di Bassirou Diomaye Faye nag ak askanu Sénégal dellu soit ci engagement yi nga xam ne rek moom la fas yéenee doxal discours bu njëkk boo xam ne rek amal na ko jëmale ko ci wàllum urgence ak priorité ci Vox Populi nag ma ngay tourné nag lépp loo xam ne rek moo fi jotoon a xew te fas yéenee liggéey nag ngir boolewaat xol yi ngir Sénégal daal di am jàmm ak dal yéenekaay bi di enquête nag defub l'enquête moom itam jëm ci chantier yi nga xam ne rek moo soxal kii di président Bassirou Diomaye Faye bi nag ña ngay xam ne ni daañu taxawal ab gouvernement boo xam yoo xam ne Sénégal ak ci diaspora bi amal ay concertation yoo xam ne rek du ci bedd kenn ngir mën a relancer waat politique publique yi nag moom Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne rek fal nañ ko ci ndimbalu Ousmane Sonko nag ma ngay jaajëfal bu baax a baax Ousmane Sonko moomee di ko rendre hommage bu am solo ci biir yëglekaay bi naan ko jokkoo njal libération dellu siwaat nag ci chiffres yi nga xam ne rek raatale na ko ci élection yi ñu weesu moom Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne rek mooy ki gën tuuti ci ay at nag ci njiitu réew yi ñu mës a tabb ci réew Sénégal ñeen fukki at ak ñeenti nag ci lañu ko tabbee ci bopp réew Sénégal ginnaaw bi mu doonee nag njiitu bureau contentieux ca direction de la législation et de la coopération nationale ca DGID moom Bassirou Diomaye Faye nag Ousmane Sonko daal di koy tànn askanu Sénégal daal di koy valider tabb ko mu doon njiitu réewum Sénégal bu weesoo Amadou Ba mi xam ne rek daal dina koy félicité ni ki démb ñeneen ñu doon xëccoog moom photo yi président bi nag kenn ku ci nekk nag lu yee cinq pour cent rek nga am moo waral ba yéenekaay bi a Sénégal ak Bénin ma ngay xamle nag ne nekkuñu ci ab révolution Sénégal ak Bénin bu 19h30 jotee lay doon yéenekaay bi di wax ci ñaareelu ndam li nga xam ne rek ñu ngi koy xaar ci gayndeyu Sénégal sunu lamb àddu tey ji nag jëmale ci mbër yi nga xam ne rek daan ñu def ay jaloore mu di Zos Bàcci Seras Tidiane Faye Pape Morlo Lagrose di ay mbër yoo xam ne rek lu ne def nañ ko ci lamb ji nag waaye seenub succès nag dafa gàtt lool mbokk yi li gën a fës yéeglekaay jàmm ak jàmm société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may Ndiaye seen revue de presse